lépp leeral leeral nga ko ndax ku ne xam na bis bi li nga xamante ni moo ko sabab mooy ku tedd ki di Cheikh Ahmadul Khadim bi mu jógee ci géej gi te indaale sëriñ Caam bu rëy ba fii la ko yenn ko bi mu ñëwee loolu nga wax rek am na fi fukki fan yoo xamante ne ni maanaam ay bernde ak jàng alxuraan ak jàng xasaay rek la fi la fi nekke woon ba muy demit la jël lépp li fi nekkoon jébbal ko maam Cheikh Anta ba tey noonu nga ko waxee néeg bi néeg bi nga xam ne fa la wàccoon fa la sa ku tedd ki nekk fa lañ koy siyaare loolu ngay wax nag sëñ Jili Mbàkke moom moom sëñ Fàllu Mbàkke Landang moom sëñ Mat Jee nag Mat Jee Ibra Absa Ibra Absa Modou Jee Modou Jee Ibrahima Awa Ñang maanaam mu xool ko nag boo xamee fii Daaru Salaam nii tey maam Anta Ndiaye Mbacke mi nga xamante ni mooy mooy mooy mooy borom Daaru Salaam moo mook sama ñoo bokk waaw mook Ibrahima ñoo bokk mahram kon kon kon kon moo sëñ Modou Mamoun itam Ibrahima Awañang rek waaw rek la demee baa na baa jërëjëf jërëjëf sëñ gaano ko santo rek la ci sanni ay kaddu wa daf ne seigne seigne Moussa Ka daf ne bis bi le Sidi hanta Ndiaye di magal dar salam mala ko wax ma mokal man la ko tarikh la won kero magal ga ñibbi ci gaanu fatali won demam ga ku weddi li nga laaj ko cheikh Mbàkke taaw bi Cheikh Absa moko fekke mom la borom gawan yebal mo mom ma hand ak Serigne ndam ka ma ñew mu reema kala na ma tarikhal ma bis ba Cheikh Bamba ñew dar salam moy bis ngir bàmba mos na mën a yàgg borom saam yéenay samay safaan kay boromi jaam ngir yéen ci bànneexi ngeen di yéege yàlla te ci jaxasoo ngeen di koyoo fa yàlla man bàmba nag wéet ak na toog ci balwaa ak i naqar laa yéege dem naa ba galwaa naqaruñu xamoon ci han ma bàmba dimee géej dootu fa am cheikh boo dajee déele na ngéej ma ñu xamoon ci han ma bàmba ñibbisee dootu fa am daaru salaam lan ñu gisee man Sidi Ndiaye man Sidi Anta Ndiaye bisam ñi bémba laay bëgg màggal ngir bëgg soppeem ba xanaa la màggal baatinab tukkeem ba moo war a màggal saayir ñibbeem ba bis bi la laay màggal lu moom laay woote mooy saa bis fa yàlla bul ko wute bis bi la laay taarix lu moom lay màggal waaju ko màggal màgg dee ko màggal bis bi la laay màggal lu fii daaru salaam waaju ko màggal soydal xam xayra maraam bis bi la laay màggalu leel xaddiimi ak darajeeñ yool mag këy max duumi te it bamba moo ko digal fa Tuubaa maa ko siyaare laaj ko mbóoti bis ba bisab keroog alhaaji mbakki bu sa laa doon siyaare bamba foofu ma buus lii la ma njool xam te waxoon man Moussa te du ko dooral ngir bisab aboo saa Cheikh Abdourahmane Lo ko naax la woon bisam ba ne nit fan ci kori moo doon bis ba ca moom axat lanaa ma yaag maam Balla na ngeen ko taarixaat bu soobee yàlla man siidi ren lay mujj a màggal daaru keroog bisam gaaw la maa ko waaru keroog soxna ndu war xab ba mu ne ma yëgal ne fii mooy barab bi mooy sama taax ma Seexi Bamba wàccoon ba mu ñibbisee loo fi dagaan dajëg kun yan ba yenoon Cheikh Bamba ilaa Konaakiri fii la ko yéen ne ko bilaa Manaakiri ndekete moom xam ne ne mooy xabroom ba moo tax mu wax tabax woon na rumba cheikh la laa ilaha illa hu muhammadan arsalu illahu cheikh yi xamoon cheikh bamba xëy nañu faddu xam yàlla xam yoon ba xëy ya faddu kenn gisatul kéréel ku mel ni njàmme ci yàlla jamono maa ko jomm kéefar bi ak séer bi andi saawaan kenn gisatul ku mel ni seydi gaawaan bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala